بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى نيغون تي تفريعات بما اندي وان تامو ابي من مرسلة بمن نوم كم ينتال بلين تولون ni معلق muallaq بنكتي di مسلم لن تنكرك منهم المعلقات يوي سورة سورة المنقطع غير غير حكم المنقطع المنقطع ضعيف لقي مي ضعيف في سحلة مجالة الصفحة التاسعة والستون ثم إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حدث من مبتدأ إسناده bima xasifa min mubtadi isnaadihi waahidun fa akthar mu ne baatu taaliq nag moom ibnu Salah nee na gis naa ñu jëfandikoo ko ci lu ñu indiwul njël benn isnaad moo xam kenn lañ ci bañ a indiwul lu ko mooy ci taalif téere bi tuddul kim jële na caayam waaye naa bañ a tudd tam te koo ko jële mubtalal isnaad mooy cheikhul cheikhul musannif ci la ko taalif teewlu kam jële mu fala sama bi tàmbale kon kuñ bu tuddul kam jële loolu lañ koy moxal la day moom rek la tudd waaye tudd na te koo ko jële moxal la bu dee tudd ko tuddul ko kooku jëlee itam mu àllax la bu dee tudd ko tudd ko mu jëlee tudd ko kooku jëlee itam bu ma taxaw si sama bi rek dinaa daal ci njëlbeen bi rek la xatta inna baadahum mustaamalahu fi xaz kulli isnaad am na ñoo sax ñoo xam ne jëfandikoo baatu baatu mu àllax sax ci xadis boo xam ne sanad bi yëpp yan xadis prompteur bi rek moo ne yonent bi noonu bu dee lu ñu askan yonent bi wala mu nekk saxaabi sàngam noonu bu dee lu ñu askanub saxaabi mu ne lu mel ne ñu joxe misaal ci ci ci yëpp nag ci lañ xas sanat bi yëpp ak lañ xas fa loo xam ne ajib sanat bi yëpp waaye lu ci gën a bari la ak luñ xas fa lu ci gën a néew ak luñ xas fa kenn mu ne lu mel ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu dee borom téere bi moo wax lii buxaar yi moo ne rek qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kaza wa kaza wala muslim wax ko wala bu daaw wala keneen loolu kon moom sanad bi yëpp la xas kon bu bu ne qaala ibnu abbasin kaza wa kaza te yemale ko ci moom ba tey sanad bi yëpp la xas bu ne rawaa abu hurayrata kaza wa kaza bu dee rawaa ji nag kon abu hurayra du ko from leading to Askarian integral economic has finally up from this Sahabi Askarian integral. بن قال سعيد بن المسيب عن ابي هريره كذا وكذا سمعتم بالحذف كلمه نيو مكتوبنا تابعين في صحابي بن قال قال الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره دنا وات تيلم حذف دنا نيوت تدنا تابعون تابعون تابعين تدنا تابعين تدنا صحابي di tudd yonent rek la la xas wa hakada ila shuyuuxi shuyuux comme noonu lay demee rek boobu ñu àgg ci sëriñu sëriñu ki ki ki kin jëli jële bu xas foo it euh, xas fowaale kim jële moom yëpp moom kim jële moom ci lay bokk moom kim jële da ko xas ci mënti daal nag boobu ñuy àgg ci yonent bi rek mu àllak وأما ما أورده كذلك عن شيوخه يعني لاحظ كي بن تيربي دكو نت ني كذلك دي موي جيفنيكو قالو لا كي نيكو جيفنيكو قالو اك نكو فهو من قبيل ما ذكرنا قريبا في الثالث من هذه التفريعات يعني بودا مو بخاري مو واخ كو خامنا شيخام لا لا نخ قال قال ديو ولا عن ديو yooyu ñu waxoon mu ne boobaa day dugg moom ci laxat saalis xaala ak waxanak ñu mel noonu te lañ ko tënkoon foofu mooy buñ ko jëfandikoo ci ñu jamononte ci ne xaala wala mu ne am jamononte naag tam tudd boobaa dañ koy jàppe sama ñu jàpp ne ci moom la ko jële bu feeg leneen wóor na ñu jëlee ko ci moom mu ne kon bu demee nii bu dee Buxaar yi moo tudd sëriñam rek ñu xaala dañ ko wala dugg waaye du dugg ci moom xasan wala mu àll waaye bu tuddul sëriñam rek lay tudd mu àll bu ko tuddee nag donc dana xaala ba tey mu tasil la yor ak mu tasil ibnu salaax nag di nettali xalaat bu am na ko am ci waa Maghrib tam قبل جسم دقائق وكنت كتبت ابن وعدان من بلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أن كان كوا مغربي كي مجني من يجنان مهم جعله قسما من التعليق ثانيا قسما ثانيا من التعليق مهلي لي لا تدسرين وانا قال والله sëriñam wala zakara wala xeeti waxin yooyu mu ne am na kenn ci waa maxrib yi koo xam ne da koo jàppee taaliq taaliq waaw weneen xeet daal ci taaliq wa adaafa ilayhi qawla al-Buxaari mu ne kooku sëriñ boobu dëkk maxrib sax yokk na ci ne Buxaari li muy wax lu baree bari ci biir téere bi naan wa qaala lii fulaan la ko wax lu bari ak wa zaadana fulaan nee na loolu sax daf caa dolli moom نتواصم كل ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى من بوب دك مغرب نانا بخاري بوخي لي تام صح كي ظاهر بي متصل لا كي مي واخ سيري نيام دو موم دو مام تجيل نتي موم وان موم سيرن با نانا منفصل من حيث المعنى كان دا بي كو ديفن كو خالا ولا عند ولا خيتي واخ يوي من دو كو جاكي منفصل وقال بتاي سيغ بالي نيك مريك وخني متى رايت البخاري يقول وقال لي وقال لنا وني صابو سي البخاري وخيني ريك فعلم انه اسناد لم يذكر للاحتجاج به من نغا خامني سان بوبي مو تدو ام جو كو نغي دغر لو سكندي كوتي ام جو كو نغي سكندي كوتي احتجاج ما لم يسكندي وانما ذكر للاستشهاد به وهذا كو ان نغي دغر لو wa kasiran ma yu'abbiru al-muhaddisuna bi hadha al-lafzi amma jara baynahum fi al-mudhakarati wal munadarat mu ne muhaddisuna dañ jëfandikoo baat bu mel ni xaalal yi xaalal la nag yu mel noonu lu bari dañ koy jëfandikoo di ci jublu lu ñuy nett lent lu ñuy def mudhakar mudhakar mooy bokk dina fat munadara moom mooy di xeetu jongante وأحاديث المذاكرة قل ما يحتجون بها تي سيني دي ديت ما يوخ لول ما تحديث ني نيت لانت نام مذاكرة نيو نا لي نكوي دي تي سلاي ابن سلاح نيت نفون واخي سيني بوبو ديك مغرب قلت وما قلت على البخاري مخالف لما قاله من هو أقدم منه وأعرف بالبخاري mais sëñ bi dëkk Maghrib li mu li mu li mu wax ne mooy doxinu Buxaari nee na loolu dafa wuuteeg loolu ku gën a yàgg moom sëriñ bi moo ko wax te gën koo xam Buxaari kooku mooy alamdu saali abu jaafar ibn hamdan an nisaburi moo ko moo ko te li mu wax daal safaano li sëñ bi dëkk Maghrib wax faqad ruwina anhu annahu qaal moom nisaburi nii كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة موم نعم، داني بخاري فم وخيني قال لي فلان لك عرض و مناولة عرض موي بخاري موي جانج موي جانج نت لي سيني بو سيني ديكو ديك نوكي تا دينغو تي دارا بو ديكو نت لو مناولة موي سيني بي موي جيل لي نت لي جوخ bind lay doon ma jox la jox gi mu la ko jox rek nag ci sañu sukkandiku ba di ko nattal di ko askanal kon sëñ bi am na Buxaari bu ne xaala nii loolu lay fekk mu doon aruf mun a aw قلت ابن صلاح السؤال ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه ومن آخره من نجس من يجفن كوباتو تعليق ci lo xamne sanad ba ci ci digg boobu amee lu manki wala ci mujj kon fuñ koy wax rek moy lo xamne manki ga ci ben gi la ci la ci la manal kenn ci ben gi wala ñaar wala ñett wala sax sanad bi yëpp ben gi dal dama fi gi tàmbalee bu fekkee ben gi manki wut nag dem ba ci digg ba rek mu manqué gisuma koy tudde lolu taalee wala mu dem ba ci mujj ba mu manqué gisuma koy tudde lolu taalee ولا في مثل قوله يروى عن فلان ويذكر عن فلان لكن انتم واخين ويتم يسمى نتدك تعليق وابنة الراوي وخين يروى عن فلان ولا من يذكر عن فلان يسمى كتدك تعليق وما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذكر أو ذكر ذلك عنه بأنه قال هو ذكر أقل من يهجم حمدال دقو أمو kañ ko askanal daal doguwuñ doguwuñ kii moom moo ko bu ne yor ñàkk dogut feeñ ci wax yenn yóot kër noonu bi noonu kii la itam wala ruwiya wala zikira ñu mel noonu waaye ci ci xaamis bi ki koy taxqiq moom nee na li ñu gën a sukkandiku nag mooy bu fekkee dogugu ci moom dañ ko jàppe taxliq bu ne zëkkira wala yuraa ndax wax dëgg dëgg tuddul ki mu jële bu ne yuraa tuddul ki mu jële tudd ko tudd ko bu ne daa taxliq قال العراقي قد استعمل غير واحد من المتأخرين التعليق في غير المجزوم به آه، فينا تي مجني غير واحد ما يرك لوب كان لوب كان ما يبغى كوفي كوفي من كم دانو خلينا ما يبغى كوفي من باريكي مجني جفن يكون التعليق كي بخير من اللي مكمل أنت يا دعوت يروى ولا كيلا ولا بكرة ولا منهم الحافظ أبو الحجاج المزي وعلى ذلك درج الحافظ ابن حجر في فصل المعلقات ابن حجر رمضان الضحى في كتاب هدي الساري وكذا في شعب النخبة وأكثر ما يوجد الحديث المعلق في صحيح البخاري آه. آه. وأوفى بحث في معلقاته في كتاب التغليق التعليق ابن حجر ما ما téere boobu seet mu àllaxaat nekk Buxaari yëpp mu topp wane fi fi fi mu amee ittisaal nga tamit xamee kon lépp lépp lu sax la naka noonu ci adiyu saar yi itam duñ ci mu ne saxiixu muslim nag kon nee na Buxaari moo ëpp taaliq muslim waaye actuellement jënd xaalis moom ci saxiix Buxaari wala ëppee muslim moom fukk ak ñaar rek moo ci nekk muallaq moom it waxaat taxaqaqat sixatuha kulluha yëpp itam seenu seenu sax wér na moom itam ci téere bi la ko Abu Ali Ghassaani leeral taqidul muhmam moo tamit si mushkil ibnu Salah itam leeral na ko moom itam Nawawi tuxale ko ci moom wa anhu Nawawi mooy Nawawi tuxale na ko ci ibnu Salah saaga muslim na tulit woon ñu leeral ne fukki ñaari yëpp ñu ci nekk soxla bu wér kon day dëgëral la mu waxoon ci ginnaaw rek ne muallaqaatu saxiixayni fi chaque nu ko waxee fi suurati bu suuratil munqatia suuratu bu suuratil munqatia laakin xukmuhu laysa xukman muttasil al munqatia يعني وكان هذا التعليق ماخوذ من تعليق الجداس بعض التعليق بين جفن كفين يعني كل دم على نينا دفع ملنا دين كو جيلتي تعليق الجداس التعليق الطلاق نعم. لما يشترك الجميع فيه من قطع يعني الاتصال طريق الاتصال التي امر مو ñeentel juróomeelu taqriyaat yi الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل لما حديث بقى من تيروادي دام كون نتلي دفكو منك منقطع سام بنك منقطع أم كنن كماسة كوكو وكماس كيف نتلي بقى كم كم كجليتهم moom nettali ko mu nekk muttasil mm. waaw ñun ñaar ñëpp suñ mbokk jóg luñ jële mm. suñ mbokk jóg bokk bokk mu nekk kenn ci noonu mu nekk te mu xotla ci ci des mu nekk te mu sot mu nekk muttasil euh, mu fii ñoom mu xatna la dugg rek <coughs> foofu mu ne wuute nañ kon waa xadis wuute nañ ci nuñ koy jàppe ndax متصل لين كي جابي ولا منقطع موصول ما منقطع متصل في مرسل تم منقطع في لمن لا نكاح الا بولي حديث بو رواه اسرائيل ابن يونس في اخرين عن جده في اخرين موي موم اك نينن موم مو نيو في مون اسرائيل ابن يونس نتلي نكو جيلي كو تي jadduhu te mooy abu isaaqu subayaan abu isaaqu subayaan jële ko ci abu burda abu burda jële ko ci ay juróom te mooy abu musa ashari abu musa jële ko yonent bi sallam gis nga musnadan hakaza muttasilan mu nekk musnad nekk muttasil ci ci sanad bi war a wax sufyaanu thawri nag wa shu'ba ñoom ñaar ñu nettali ko jële ko ci abu ishaq mi ko bi ko Israil Jibril Yunus jële kon jële ñu ne tam abu isaaxa itam ci abu burda la ko jële waaye ñoom waxuñ ne abu burda ci abu musa abu burda nee na yonent bi nee na rek kon moom abu burda taabiyaan yi la te waxoon suñ ko jële seen sanab ñoom لول مثال لا تي كون لي بن سند لا واي ابو اسحاق اك نينن ابو اسرائيل اسرائيل بن يونس اك نينن نون بن كاي نات دا نيك متصل واي سفيان الثوري اك شعبه نون بن كاي نات دا نيك مرتبط فحكى الخطيب الحافظ الخطيب البغدادي نانا نانا ني اوب تي حديث يرون الحكم في هذا واشباهه للمصطلح من يكتب حديث lu mel nii mu ji la ñuy jàpp mooy mun xataan bi mm-hmm. mm-hmm. la ñuy jàpp mun la ñuy jàpp buñ bi suñ jële wa an baadihim nga xam dañ am na lu xokma lil aktar dañu wax ne mun xataan la rek wala ñu ne mu sosil la rek waaye dañuy xool ñi ko ñi ko nettali mu nekk mun xataan ak ñu ko nettali mu nekk muttasil bu dee ñoom ñëpp ñu doy lañ ñu seet ñu ci ëpp ñu ci ëpp wa an baadihim am ñu ne an al xukma lil ahfad ku ci gën a mën a wat moom la ñuy sukkandiku fa ida kaana man arsalahu ahfada min man wasalahu fal xukma li man arsalahu bu fekkee ñi ko irsaal mooy ñi ko nettali mu nekk munqati كيكو كيكو نت منك من خاطر دا غنا مانا وارت كيكو نت منك متصل كان دا في جاب من خاطر ما كان دا كان من اصلا ثم لا يقدح ذلك في في عداله من وصله واهليته واهليته كان لول دو تخ نك لولو ياق دارا تي عداله ak doy gi gi nga xamne kiko wasl doy gam doy ko waxal la ti charge bu ñuy wax ci charge lu mel ni ci charge boobaa ci ñu ko waxee ñoom kon lii rek mooy loolu lépp tarjeex la tarjeex kii na lil aksar loolu tarjeex la kii na lil ahfaz tarjeex kon foofu li ñuy wax rek mooy ñaari xalaat la waxagum bu njëkk bi mooy xatib nee na ñëpp ci waa xadis dañ ne bu demee noonu rek man xatam la ñu jàpp mooy xooluñ ku ci gën a mën a toog ku ci gën a bare yëpp xooluñ ko xataan jàpp rek li bu njëkk bi bu ñaareel bi dañuy tarjeex tarjeex moom mooy ñu xool ku gën a yaaya ku gën a yaaya jël gën a yaay nag mën naa doon ci ab lim mën na ko waral gën a mën a wattu itam mën na ko waral kon ñaar yëpp moom ci tarjeex nag kon bañ bañ jàppul charge lay tudd charge tam lañ ca waxoon mooy xadis bu nekk chaaz du teye ñi ko nettaloon ko doy ba léegi seenu doy du du wàññi ko dara duñ jël foofu rek mënuñ koo jël waaye nag du teye ba léegi ñu doy la moom lay waxaat fii wa minhum man qaal ba tey beneen xalaat man asnada xadiitan qad arsalahu alxufaazu fa irsaaluhum lahu yaqdaxu fi musnada fi musnadihi wa fi adaalatihi wa ahdiyatihi na fi musnidihi mu ne ñaar yëpp musnad ak musnid ñaar yëpp nett la nañ ko ñaar yëpp te buñ ci jàpp rek baax kii moom mooy bee lay àggale day wane ne kon dañuy tarjee bu fekkee nag ñi ko wasl ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko nett li mu nekk mun xatea dañoo gën a dëgër dañoo gën a dëgër bañ jàppe ko mun xata kon fa ko waslu woon loola da koy da xañ ak doyam li mu wuteeg bi rek mooy bi weesu moom dana du tax mu xañ ko ak doyam nag ci di ci dol nag ne kon da koy xañ ak doyam bu fekkee ñi ko xatoon ñoo gën a dëgër kon fa ko waslu woon wuute bu mu wuteeg ñoo ñu gën a dëgër da koy xañ ak doyam ومنهم من قال الحكم لمن أسنده أمنا ينككو نتل منك متصل مملني فك مملني فك لكن دني بوني جاب متصل بين جاب فأنا إذا كان عدلا ضابطا رك ما مسافين كي ما يسافان بنيكو من قطع مملني فك بوجي بينا ما يسافان ما يكون نتل منك متصل مملني فك bi nag mooy tarjih ku ci gën a yaay rek moo leen di fekk gën a yaay gi nag ci gën a mën a wattu lay doon wala gën a bari lim ko defee kii moom dana bu mujj bi kon mooy ki ko nettali mu nekk musnad mooy mu nekk muttasil moom lañuy jàpp waxam fa yuqbalu xabaruhu wa in xaalafahu gayruhu ko defee ku mënti wuuteeg moom nettali ku mu nekk mën xataa itam dañuy nangu ki mu nekk mën tasib sawan kan muxaalifu lahu waaxidan aw jamaa ki wuuteeg moom nettali ku mu nekk mën xataa moo xam day kenn moo xam day mbooloo safaan bu njëkk ba rek kële moom dana ki ko nekk mu nekk mën xataa daal mën xataa bi dañuy jël duñ ci xool ku ci gën a dëgër ku ci gën a bari dara bu mujj bi nag mooy muttasil bi lañu jël moom itam duñ xool ku gën a bare ku gën a dëgër ak dara qaala alxatib hada alqawlu huwa saxiix mu ne xatib nag nee na waxtu mujj ji mooy li wér mooy bu amee ku ko nett li mu nekk muttasil wala ñu ko nett mu nekk muttasil ku ko nett mu nekk mun fa mun xataa kon ittisaal bi la ñuy jàpp ñuy jàpp qultu ibnu salaah ne wa ma saxaxahu huwa saxiixu fi lfiqi wa rasuli من لي خطي وحنا ما صحيح ما صحيح وافق موم لا نيوخ وا اصول موم لا نيوخ من البخاري تي تي تي تي فوق لا نيك مومت نخنا نا وسئل البخاري عن حديث لا نكاح الا بولي وخون كو لغي تي نو بين كو كو المذكور بي نخون لغي فحكم لمن وصل البخاري موم ني نيكو واصل لا ني فك متصل بلين جاب سند متصل بلين جاب وقال من بخاري الزيادة من الثقة مقبولة لكن قاعدة لبعون واحد سكة كرمت زيادة الثقة مقبولة زيادة الثقة موي كدوي نت لدارة خم خميام كنين كدوي نت للولا أقل لنين لكدولي لكي أقل لكي لنين زيادة dañ nangu kii li li mu ëppalee kee dañ koy nangu duñu wax ni kee moom fee rek la yem waaye fa la nangul nañ ko ko moom mi koy sëm dañ koy nangul dañ koy nangul fa mu àgg moom itam ndax ñoom ñoom ñoom ñëpp a doy fa qaala al-Buxaari haada gisoo mu ne Buxaari lii la wax ma anna man arsalahu Shu'batu Sufyaan te ñu doon xool rek ay dëgër ak yu mel noonu ña ko irsaal kenn gën leen a dëgër kon foofu xooli fi wàllu dëgër ak tere ginnaaw ñu ko nettil daal ñu doy leen noonu ñu ñu jàpp ko mu muttasil kon mu muttasil la ñuy jël ndax day mel ne ñoom li nettil daa ëpp rek la ñuy nettil nettil ndax ki ko def mun xasin لمن أبو موسى من تدل الفري تدل نجو في كنترول زيادة ما متصل لما أن من أرسل شعبة وسفيان وهما جبلا نحن على أي دجل وخير أو وخير نو وخير نو دنجي وقت وعلى نيوم بني وقت فرم خم خم هذا سمعت بني جبل لك ما يكون خمنا كن منكو ويسو جبل ملك نوني ملتي والله حديث اللهم من الحمص والإفقاد يعني درجة العنق العالية واللي أبنا فهم في منقوص فكن فوق قولوا شيء بخاري قولوا في قولوا في جنة جنة تكفن تدارك دارا فنيب نيدايلن نيكو إرسال نيدايلن نيكو إسناد نيدايلن كي إسناد كون داي ملنا رك دا دا دا دا نت نيبو أوب نيكو ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله نبتدى فك سليتم وفك كيكو كيكو وصل موكو إرسالون تم ما بين رأي بجوف موكو نت لفي منك من قطع نت لأتكو منك متصل نبتدى فوف للبوي وصله في وقت وأرسله في وقت نبتدى نت لفي béréb sàngam bi ñu koy nettali bi ñu ko nettalee mun xasan la nettali béréb sàngam moom dafa nettalee mun tasil la nettali boobaa itam lii ñu waxoon rek mooy feeñaat foofu bu dee Buxaari yi ak ñim waa fiq ak usul ak ñooñu dañ ne wasla bi lañ jàpp وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعض ووقفه بعضهم على الصحابة زيادة الثقة متى ñooy bokk atta rek mooy bu fekkee hadith bi daa am ko li mu nekk marfuu keneen nettali ko mu nekk mawquuf boobaa itam atta bi ñu waxoon ne ci lañ pour ñu dal ki ko li mu nekk marfuu ziyaada da ca am te ziyaada si sax maqbuula ji bu Buxaari waxoon te ñëpp wax ko itam mën naa dugg aw rafaahu waaxidun fi waqtin wa waqafa huwa aydan fi waqtin aaxar comme ni ñu ko waxoon fee rek ba tey kenn rek moo ko nettali nettalee ko ci béréb sàngam bi ñu koy nettali mu nekk marfon feneen mu nekk nettali ko mu nekk mawquuf ba tey ci àtt bi la fal xukmu ala al asaxi fi kulli dalik ndax li gën a wér ci lii lépp moo ne al xukmu lima zaadahu thiqatu min al wasli war rafa kon mooy wasli bi la ñuy jàpp bu dee diggante wasli ak ak irsaal la réforme bi dañu jàpp comme que diggante réforme ak fi ndax lu ci nekk ko def daa daa dem si daa dem siyaada li tax nag ñu naan ziyaada fiqa maqbula ak yëpp tun dugg foofu dañ naan li annahu musbit ndax moom mi wax lu ëpp la koy wax musbit day saxal moom day saxal wa xayruhu ka ca des nga xam ne waxut li mu wax moom saakit la saakit mooy daa waxut dara rek daa waxut dara daaw ko dara kon mooy buñ buñ buñ nangoo ñaar yëpp mais mën nañu bool nangu ñaar yëpp kii daa wax yam fi ñu nangul ko lim wax kii wax moom weesu foofu ñu nangul ko lim wax moom itam wedduwuñ ci kenn hmm. kon ki ci des dañ koy jàppe sàkk buñ ko jàppe woon sax naa fii mu ne wala kana naa fiyen ngir wane ne nit mën naa xalaat Euh, ki ki ki ko wasluwut daa dàq waslu bi day mën da ko dàq nen buñ ko jàppoon ne sax ku koy dàq la fal musbitu muqaddamun alay kuy saxal la ñuy jiital ci kuy dàq alay dàq xamul waaw kii dàq li xam dàq dara na loo xam xëy bu ko xamul du ko dàq te ko xam kon ko indi ko des du mën a bind te fii sax boo ne woon nag sax jàppewu ko dàq waaye da nga ko jàpp rek saakit da nga ko ci waxul dara loolu moo gën a lay gën a kii wa li hada al fasli taalluqun bi fasli ziyadati siqati fi lxadis dañ daan ko ci kanam ñu ziyadati siqa rek bu bu siqa nettalee ab xadis beneen siqa nettali ko am lu ca dolli ko lu ca lu ca lu ci ëpp lu nekk fenn parce que incha allah taala wa jàpp ne tadlis bi xaj na fee wala tadlis ne ñetti téléphone yi xaj na fi hmm. foogoon naa ko waaye danga dugg ci wér na de maarifat tadlis wa mudallis mudallas la bind fi ah, mudallas mudallas mooy xadis bi toog xadis bi am tadlis mudallis mooy koy def moom التدليس قسمان تدليس بكل وقت وقت ولا فرد wolof rek daanaka mën na ko ولا لندل wala لندل wala lëntal التدليس قسمان أحد أحدهما تدليس الإسناد نعرف هذا التدليس أمنا تدليس الإسناد بجلس ما تدليس الشيوخ تدليس الإسناد نعم أن يروي عمن لقيه لو لو لو سولة maa lam yasmaahu minhu muuhiman annahu samiahu minhu mooy am kuy li askanale ab nettali koo xam ne daje naa ak moom buñ ne daje mooy xam nañ ne ko ab xadiis fekk nag déggewu ko ci moom fekk déggewu ko ci moom li mu jëfandikoo it baat bi mu jëfandikoo it baat la bopp du firi rek ne dama ko dégg ci moom hmm? baat yooyu mooy baat yu ñu doon ay aan ak ay xaal ak ay zakar ak mel noonu bu dee ci wolof nga ne nee na rek nee na bu wane sëñ Jóob nee na ji du firi rek ne dama ko déggee ci moom hmm? waaye bu ñu xamee ne man euh, ku ku ku ku ku am ku am daje naag suñu mbàkki jóg bu wane nee na it mën ci dégg dama ko dégg ci moom loolu mooy mooy ihaam ji nee na boobu teg nee na ma nee na ma moom mooy dama koy dégg ci moom bu wane nee na rek nag firi rek ni dama ko dégg ci moom mooy bu sarir fi sama kon boobu mu mu mu askanale kum dajeel loo xam nag déggewu ko ci moom baat bi ñu jëfandikoo itam doonul baat bu leer nañ ñi ci di firi ci moom laa ko dégg waaye da mënees na caa déggee na ci moom la ko dégg mooy ihaan wala mu nettalee ci kum bokkal jamono waaye sax dajewuñ waaye nag bokk nañ jamono ba ñëpp nañoo bokk jamono itam waaye sax xëy na mosuñoo daje ba tey mu askan na ko wax joo nettali boo xam ne moom it daa jëfandikoo baat yoo xam ne bu firi ne damaa dégg ci moom rek rek waaye nag mënees na caa déggee ne daa déggee ci moom hmm. su ma xat yakunu baynahuma waaxidun wa xat yakunu aksar hmm. bu ko defee diggante kim ne nee na mën naa kenn rek moo dox seen diggante ku ñu tuddul mën naa am sax lu ëpp kenn dox na seen diggante ومن شأنه أن لا يقول في ذلك من تدلس بملني نك لي تخ مو دون كو موي دو واخ دو تي واخ اخبارنا فلان اخبارنا مو موي دا واخ دا واخ واخ نو لام لا ني ديغينا دا ديو نينا ديو نينا نيو ديو نينا نو مم دا ديغ لي كري وانا حدثنا باتاي دا ما ديغ لي كري وما اشبه ما لي فلو خامني دا لير ناني تي موم كوكو واخ maa dégg ci moom rek lay firi waxin woo du du ci tadlis bu ñu waxee tadlis mooy waxin bu waxin woo demeewut noonu waaye danaan ke xaala fulaan wala mu ne an fulaan wa naxu zalik mel na zakara fulaan yu mel noonu مثال ذلك ما روينا عن علي بن ابن خشرم قال نجح مثال تدليس تدليس الإسناد بن طلني من كنا عند ابن عيينة فقال ابن عيينة سفيان ابن عيينة دانا نكون في موم بيس جك جك رغنا الزهري دي بغا جال ام كونيكو حدثكم الزهري دا زهري مو واخ نيا دغ حدث مو مو واخ نيا دغ فسكت من كيل ba saag mu tàmbali waat dawaat az-zuhri ñu ne ko sami'tahu min az-zuhri waxee ko beneen waxin waaye yëpp li ñuy firi rek mooy xaddasako mu sori mooy zuhri leen ko wax fii mooy ci zuhri mi ko dégge ñaar yëpp ñooyam fa qaala laa kon daa bëggoon daa bëggoon a réerantal di ko taxawoo nag te ñi moo lu du dëgg ndax waaw ñi moo tax buñ ko taxawoon ak bëgg mu wax leer nag moom mu ne la la asmaa ko mu ne zuhri déggee ma ko ci moom nag déggee ma ko sax ci ko déggee ci moom mooy dañoo xam léegi nag kii kii kii kii manqué mën naa doon kenn mën naa kenn kii moom ñu manqué digganteem ak zuhri ëpp na kenn sax mu ne wala min man sami amee na zuhri xaddasani daal di wax nag dëgg-dëgg fi mu jaar ba ak ci moom mu ne xaddasani Abdur Razaq an Maamar an Zuhri ñaar dox lañ digënté mom jëf Sufyaan mom ki ki ki mu dalé so ni la bokk ñu xamee li ci la bokk moy ak jour bi ñaar Sufyaan yëpp Sawri ñom ñi koy borom xam-xam ki fay mag lañ waye ñu tadlis li ci xamee xamé al li saani beneen xaaj bi mooy tadlisu shuyuux kon tadlis mooy décor te yenn maanaa itam te nag ku ko taxawu maanaam ëllëg buñ nekkoon yow yow kat yaa ne foofu suuf bi nee na moom waxuma loon de nee na ma de nee na laa waxoon loolu mooy tadlis li muy waxee mënu koo mënu koo tiiñal ndax boo ne ko ah yaa ngi faxoon nangam mu ne ah lu ma leen waxoon man nee na laa leen waxoon loolu mooy tadlis foofu lu jóge nga xam ne waxut lu amut waaye fexe na ba ba nit ñi mën a jàpp lu amut foog ñu dina dana dana bëgg ni jàpp lu amul ci li mu wax ñu jàppee ci lu amut te moom nag waxut lu amut neewut diw nee na ma diw nee na rek la wax waaye ni mu ko waxee nag ni ñu koy déglu dañu jàpp ne moo ne ko bu ñaareel mooy tadliisu suyuux moom mooy moom tudd na kim jël waaye di ko tuddee tuddee réerantal ba tey rek mooy tudd na ko waaye taxul ñu xam ko taxul ñu xam ko man naam sax day bëgg ñu jaawale ko keneen jaawale ko keneen mooy an yarwi an cheikhin xadiisan samiahu minhu fa yusammihi fa yusammihi moom aw yukannihi aw yansibahu aw yasifuhu bi ma la yu'rafu bihi kay laa yu'raf mooy kon moom tudd na kim jële waaye nag ni mu ko tuddee da koy tuddee ci anam guñ ko xamewut yu sàmmi mooy mu ànd ismam mu ànd ism boo xam ne xamewuñ ko wala yu kan nii mu àndi kunya boo xam ne xamewuñ ko aw yan sibahu wala mu nis ànd nisba buñ ko xamewut aw yasifu bi ma la rek rek mel daal boo xam ne rek dëgg la melowaan ca kooka waaye nag siiwewu ko hmm. te lam ci jublu kay laa yu'raf ngir ñu ko xàmme ne mooy diw sàngam ak liis la mooy réerante la ما روي لنا عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقرئ أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله عبد الله بن أبي داود مين؟ عبد الله لا tey doom ابو عبد الله la dëgg la waaye nag séewul noonu bu ko waxee rek duñ mën a xam ne moom nii lañ lañ ci jublu وروى عن بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المخرج فقال حدثنا محمد بن سند moom itam sind mi di maamam kon dëgg la waaye siiwu xamewoon ko noonu mooy mooy mooy nasabam andi xamewoon ko noonu ويعني أبدأ منك تدليس من أما القسم الأول متدليس الإسناد فمكروه جدا ذمه أكثر العلماء كن يبدو أنه هو دينكو دينكو بني لول نعو لكو لول وكان شعبا نغمم ابن الحجاج من أشدهم ذما له نيكو نيكو جنة نعو لكي لبوك من شعبا فروينا عن الشافعي الإمام رضي الله عنه عنه نعم. ابن صلاح نانا نعم. جبنا نتلي بجوري الشافعي بجوري الشعب عنه عنه جمع شعب أنه قال التدليس أخو الكذب دارم نعم. الله مم وحد الأمر ما وحنا لو بغي ني ني وروينا عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من يدلس مم ترد جي ترى لهم لولدان مم نزينا سأقوم مم جن المن تدلس مم تنك سرين وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر والتنفير من واحد جي شعبة وحنك إفراط مم أقول لكم حمي لأنك أجلك كدال dafa dafa dafa def da da cee bëgg xuppe rek dawloo ko nit ñi bañ loo ko nit ñi rek moo tax wax wax di rajo jaa dëgg-dëgg àndul foofu kon bu njëkk boobu kon moom bu àggu fi ko sombaax gale itam moom daal du rafetlu dara su ma xalafu nag ginnaaw bi ñu bi ñu dëppoo ci ñaawlu ko nag ñu wuute nag fii xabuli riwaayati man urif bi hada tadlis kuñ ko xamee nag ndax léegi danañ sukkandiku ci nettali mi yoo xam ne tadlis amul ca tadlis amul ndax daañu ca sukkandikoo ci fa jaalahu fariqun min ahli alxadisi walfuqahaai majruuxan bi dalik am na ci waa xadis ak waa fiq yi ñoo xam ne ñoom dañ naan kuy tadlis rek tadlis bi ci boppam kon léegi du koy jàmm la mooy lu koy xañ ak doyam kuy tadlis kon doyatul وقالوا لا تقبل روايته بحال بيسوب منغوتي كون أبنت لين تجن أنا بحال بيّن السماع أو لم يبين ما خاب وقنا توقي الولار ندما ديك ولا لا وقف وقين وقين من يخم في تدلس من لوح كنا على حسن خمكم تدلس لكم دوير الدرجة هم نيوح لول فمونا وصحيح نجمي التفصيل بيوير نجمي bañ ko wax noonu rek waaye teqale teqale loolu la wax ci suuf xaamis bi nag wa huwa alladi alayhi jumhur aimatul xadis al fiq wal usul lu mu julli mooy kon ñi ëpp daal loolu lañ jàpp mooy ne duñu wax rek ne duñ nangooti benn nett leen waaye dañuy taxantal taxantal gi mooy wa annama rawaxul mudallisu bi lafdin muxtamilin لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم حكم المرسل وانواع كون كين خمي تدلي سابو جيفانديكو بار بو خامني محتمل لا محتمل موي بو خامني ما نس نتي دغينا دا دغي تي كاي واخ ما نس نتي دغي ني دغي وتي محتمل تلم يبين فيه السماع لير لو كينا دا دغي والاتصال بو ني دغي ما اتصال يامنا نانا بو لم نتل كي أنا مقول مم حكم حكم المرسلي وأنواع مم أكتب مرسل لا يور أقول لهم منقطع لا أكتب منقطع لا يور المعان تاني كي نعقوم أي كي كو كي دفع أنا أنا بيد كم يوين كو تدلس ما كم يتدلس مم بدفع أنا أنا بيد كنا نعقوم كو تيم تسوق لي أنا نقول صريح في في السماء mu ne ba maa rawa bi lafdin mubayyinin lil ittisaal nag bu fekkee nag dafa nettali te jëfandikoo baat boo xam ne moom daa leeral ni dafa dégg boo war dinañ ko nangu bu ne samiatu wala mu ne xaddasana axbarana xaddasani axbarani anbaani zakara lii qaala lii waxoon baat yooyu yëpp moom wa asba وأشباهها فهو مقبول محتج به وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من من حديث هذا الضرب كثير جدا من بخاري مسلم أك ينن يدل نيوم كتيري يسكنك حديث خادي بارنا جلول خادي موي نيغا خامن خامن نيو تدليس بنوبي نيت لي yañ bayaane sama yañ waxee lu mel ne xaddas na axbar naag yooyu bari na ci buxaari bari na ci muslim bari na jëlam téere yi ñu sukkandiku yëpp mooy wala ne kon ñoom luñ nangu la lu ñu sukkandiku la mel na xataada ak al amash ñi ñëpp na xam yu mag a mag lañ ci xadis waaye ay mu dali sun lañ ak as sufiyaanayni sufiyaan ibnu uyayna sufiyaan thawri wa hushaym ibnu bashir wa gayrihim lu tax شكل ضعف من هذا لأن التدليس ليس كذبا دقدق التدليس دو كذب كذب يوخ له أمر يوخذ له أمر وإنما ضرب هو ضرب من الإيهام إيهام إيهام موي فربا جملو نيت كي دارا فاي واخو كو واخين ولا يعني واخ بلفظ محتمل يبن كو بعد بو خامني دال ما يسنا كي ديغ ما يسنا كي ديغ لي nga wax ngir mu leer na ci ñaar yooyu waaye waxoo ko waxoo ko waxee mu leer ne ko boo ne woon nee na ma te déggoo ko ci moom loolu mooy mooy dafa kadib waaye nee na rek te déggoo ko ci moom du nekk kadib ndax nee na rek du firi du firi rek ne lu dégg ci moom والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين قد أجراه الشافعي رضي الله عنه فيما عرفناه دل سمره moo lii li ñu wax nag ne ki ñu xamee tadlis bala ñoo nangu nettaleem day leeral ne dafa dégg yu bàyyi na ma yu bàyyi na sama day leeral ne dafa dégg loolu nee na saafe moom dane kuñ ko xamee benn yoon rek kuñ xam benn yoon mu tadlis rek foofu la ñuy tàmbalee ci moom noonu duñ xaar ba miin ko ci moom waaye benn yoon bu ñu xamee tadlis na benn yoon rek ba mu sax ne tadlis na benn yoon rek wala ñoo nangoote waxam يرون الله حمد الله تعالى حدثني ولا حدثنا ولا أخبرنا ولا بنا وأما القسم الثاني مجرد تبليج الشيوخ فأمره أخف مبنواف مبنواف تبليج الإسناد ndax moom tudd na kim jëre da koo tuddee nag lu lu dul tax mu ràññi dafay sikk la kon waaye moo da ko waxoon ne waaw dañuy dañuy bëgg gëmloo nit ñi ne ci moom la déggee déggewut ci moom wa fihi tawdi tawdiun lil marwiyi anhu moom fii moom li fi nekk rek mooy dañuy dañuy dañuy sànq ki mu jël sànq ko mooy bañ ma bañ koo xam dañ koy réeral daal dañuy réeral ki ki mu jële ba duñ xam kan wa tawirun li tariqi maarifatihi ak jafeel yoonu xam ko jafeel yoonu xam ko ala man yatlubul wuqufa ala xaalihi wa ahliyati mooy ku bëgg a gëstu ba xam lu ñuy xadis bi bu ñuy sukkandiku la wala déet daa war a xam li mu jaar kooku nag bu agsee ngir mu xam ko day jafe ci moom mu tawayir yoon yoon yoon wu naqar la ñuy wax tariqun waayir tawayir mooy naqaral aw yoon kon dafay jaar jaar mu métti lay doon war mën a jàll kon yoon wi jaar bu mën koo xam ba xam doy na am doyut yoon woowu dañ koy jafeel كتابه النسيان للتفاهم بكيتها فعنك ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه فعن مومت أكتر موم من أجل مومت لطخ نيت كدفك لطخ نيت كدفك لطخ من جيتو دو يدان طخ ولا يمنا طخ فقد يحمله على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير ثقه loolu mën naa tax nga xam ne kim jële dafa doyut te mu xam ne bu ne diw nanaw di nga xam ne diw sàngam la rek daañu xam ne ni kenn du ci sukkandiku te ñi moo tax loolu moom it ak gu foofu ak gu ñi may waaye kon mu réerante tudde diw moomu noo xam ne du gaaw leer ba xëy na ku munta sonn leen coono ngir gëstu ko dañ ko daan nangu rek xaw ma kii ma waaye bootul xanaa ko doy la war doon rek wala mel noonu boobu yées mooy mooy mooy la te nga bañ nit ñi xam ko kon mën tax nit ñi nangu lu ñu boobu moom ku yées lay doon moom mën naa yées sax ba ca kaw mën naa yées tëdd li si gis naa dafa dafa yeex a faatu xat shaarakahu fi samaa'i minhu jamaatun duuna dafa yeex a faatu ba am na ñu bari ñu jële ci moom ñu bokk ñu bokkandoo moom jële ci moom ñoo xam ne ñoo ko féete suuf moom ñoo ko féete suuf ci at wala ñoo ko féete suuf ci daraja wala ñu moom moom itam mu bañ ñoo xam ne kii daanaka moom moom xale yi ñoo bokk ñoo bokk sëriñ daal la <laughs> mu bëgg moom xale yi bokk sëriñ ndax ñoo bokk sëriñ moo leen mag fopp ñoom waaye sëriñam bi dafay yàgg dafa yàgg ba moom mu jële ci moom ba mu ba mu ci jël am ñu fi judd ginnaaw bi jële ci jële ci sëñ boobu itam mu wañ nag ñu xam ne moom ñi daal ñu dañoo bokk sëriñ ji loolu mel noonu mu réerante loolu amul solo waaye àggul fa ne ndax ku doy la ki mu tudd ki mu tudd toujours lépp doy na waaye problème boppam loolu daraje boppam xëy la bëgg moo tax mu mu doxee noonu aw kawnuhu asgara sinnan min arraawi an wala sax man ma jëlee ci koo xam ne maa ko mag ba noppi nag bëgguma nit ñu xam ne man damay jëlee ci koo maa ko mag bu mu waxee ko waxee ne woo dañu duñ a xam kan la loolu tam solo waaye àggut ci ndax bu dee ko doy bu ko xamee itam ku doy la kon kooku dara dara nga ca mooy li la ci yóbbu moo xamul solo ndax loolu lépp ak méthode yi kon ak doyal yi waaye nag àggut ci fi nga xam ne moom da ngaa xam ne boo ko tuddoon ñu xam ne kenn ci sukkandiku aw kawnuhu kasira riwayati anhu fala yuhibu al iktaara min zikri shaxsin waxidin ala suratin waxida li yëpp sax mënoon naa am koo xam da nga li nga jëlee ci moom daa bari daal yàgg nañ laa yàgg nañ laa dégg nga naan diw naan diw naan diw naan nga ne bari na daal li ma koy li nga jëlee ci moom bari na daal dégg nga ne moom rek moom moom rek moom rek laa ci moom rek laa jëlee moo waxee fii nag loo xam ne suñu réeratal ba lu xam ne ci moom laa jël ngir war na daal moom te jëlee ci kenn rek am naa ñu war ñu jëlee wala ñu jàpp loolu jàpp loolu وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين تسمح بذلك موي ام نكو ويفال دال جيفانديكو ام نكو جيفانديكو تا ويفال كوغن الخطيب البغدادي جيفانديكو ني تدليس بي تدليس شيوخ بي جيفانديكو نك تفي نو خام نكو ويفال دال فقط كان لهجا به في تصانيف ما كارنا لم يرد في التصانيف taalifam dañ ciy tudd ay suyu xam ci anam goo xam ne du tax ñu xàmmee leen